bi sifflé na Khalil combat bu nar gaaw lay doon si diggante si diggante kii ak Imaamu Bouba moo ñu woon ginnaaw Imaamu ñaata yoo xaw a nduróo ngeemu nag ñoo ngay leewtoo Imam Wack Djiné Imam moo xees Bouba ak Imam Djiné ñoo ngi lay too ñoo ngi door Bouba moo xees Imam Djiné moo ñuul ñoo ngay lewtoo ñoo ngay lewtoo Bouba ngi sëgg di ko fixé ñaari ndaam Bouba law na dalul dóor ba dalul Limamou Dine mu ngi naan fay waaye moom tamit dalul mën naa doon combat bu gaaw ñoom tamit ñaari ndaam lañ ñaari ñu tolloo ba nuroo sax ay ngemb nuroo ay téere dama ne ko ñoo ñoo bokk même sëriñ nat. ngay leewaatoo ma xale nee na ma ngeen lu la yor <laughs> la nat da ngay leewtoo. ndeysaan yéen part de combat mag bi diggante Xeeru Ngor ak Mbaye Tine Junior ñoo ngi dem ñoo ngay lewtoo Mbaye Tine Junior ñoo <laughs> ngay lewtoo ñoom ñaar waaye lamb ji arbitre na gaaw na gaaw wax na leen ko fi mu toll nii dafa changé ma tey say waxoon naa leen ko arbitre day sifflé bu leen waay <laughs> xel yu nekk sama xel bu ma la ko ambisi bi na da ngay leetoo da ngeen bàq boobu xeetu ngor mooy bàq lu neex loolu moom may tin si ñoo ñoo nar a bëri combat mag bi moom mi ngi def ay déplacement latéral dégg ngeen ko moo ngi noonu def ay déplacement latéral bët na may dem deful eh eh Bouba dóor na eh laaw na dina tàkkee trois appui eh moytu kaaw déet déet ngay leew ku nekk ñam na sa morom xam sa morom lu mu saf ngay toog eh. bu baax <laughs> dóor boobu mooy lan. <laughs> ah waaw bu baax sama cameraman nee na buba moo sol ngémb lu ñuul li <laughs> may teg si kot. wala leen seen ba tey yéen xaar pour ñibbi. déggal xeeru ngor bi bàquwaay ginte ginte tey lii <laughs> sama kàmmaa xale baa ngi fecc boog naa ma ginte suuf da ngay leew to waaye kaw la ah da ngay dorante da ngay dorante tànk jëm si tànk jëm dina am ku dóor moroom mu daanu dina am ku dóor moroom mu daanu daanu na waxoon naa la ko damaa xam lamb supporter <laughs> jug nañ dóor mu daanu ak moo naa ko ñaari baram laa la wan daw dem supporter am ya may ko mu jàll bulul barrière yi daw say supporter jaayu dafa lu la neex ah imaamu bu baax bu baax doon na mu daanu suuf maamu jàpp na boobu xamatul fu mu nekk moo ngi laaj ab lu xew nee na lu xew sama kay maam mu ngi si béteer man maa ngi si suuf tey lii xool ko jaay waaw moo daan xam naa lool <laughs> waaw moo dóor mu daal bu waa xeetu ngox di seen muy bàqu